bonjour merci de nous rejoindre jaajëfal nañu leen jaajëfal bu baax Cheikh Diop mi leen doon dégtal euh, xibaar yi ci kàllaamay Kocc jaajëfal leen yéen. Euh, internautes yeeg téléspectateurs yi saa su ne xam ngeen ni bu journal bi jeexee euh, ñun tiim li xew ci biir internet bi wala heure bu baax bi daal di ñëw installé wu fas yéene gunge leen 20 minutes non stop dina mel ni euh, téléphone portable statut whatsapp facebook twitter wala instagram ndaxte li gën a fees ci internet bi rawatina réseaux sociaux ndaxte ñun dañuy boole utile ak agréable dañ leen di informer autrement surtout di leen alerte sensibiliser leen mais surtout gën leen a ñaaxit naka la ñuy jëfandikoo xarala yu yees yi surtout mais yi nga xamante ne heure bii tamit baaxoon nañu di scotché wu euh, télévision Futurs Médias di suivre bu baax lii di li xew ci biir internet bi jaajëfal suñu réalisateur connecté ñëpp di ko laaj ku nekk naan ñu kan kañ nga ñuy wan Pierre Da Silva moom mooy réalisateur connecté nee nañ Pierre xarañ nga ndaxte démb ba tey macha allah Pierre euh, suñu professeur la ah te ancien la wax naa leen daanaka dem na retraite plus de 23 ans de service la def nii macha allah yàlla gën a yokk ndaxte gis naa internet yi ku nekk di laajte naan ma Ndiaye kañ ngeen ñuy wan Pierre Da Silva du mës a nekk nag. bàyyi leen ko ci ginnaaw rek ndax bu ñëwee ci kanam du baax nuyu nañ leen bu baax a baax euh, tey la mercredi 15 septembre 2021 euh, safar gi ñu ngi koy waaj ñun baaxoo nañu ak euh, équipe digitale bu groupe Futurs média chaque jour ñu lancé leen benn vidéo boo xamante ni jàngaleeg Cheikhul Khadim la ñu nit tamit nii lañ koy baaxoo di defee ñu dégtal leen jàngaleeg bés bi. هكذا بعد معين am na solo nii la ñu fas yéen gungeek yéen ànd ak yéen ba ci safar gi ñi ngi mooy safar set moom lañ ko def fas yéen dañ ngiy fas yéene wàññi bis yi ba ci 18 safar gi incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm di jaajëfal yi tamit groupe Futurs Médias mi nga xam ne déjà tàmmali na ndaxte ay plateau yu am solo lañ leen di dégtal bés bu ne euh, seetlu ngeen ni guddi gi ak ñoom Serigne Jileek ñoom euh, Serigne Mamor Mbacke gis ngeen plateau yu am solo yi ak yeneen reportage yoo xam ne ñi leen ciy dox ci diggante Faty Dieng ak kii di euh, Pape Djibril Fall ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi leen di fas fas xaar fii ak euh, safar gi moo tax it fii la euh, télévision Futur Média comme ni mu ko baaxoo di defee at mu ne yal yàlla may ñu yegg ci ci jàmm yoonu safar gi gis ngeen ko tweet yeeg euh, message yi commencé na ak visite yi nga xamante ne personnalité ñu ngi koy def jëm jëm fële ca Touba démb kii di eh, ki fi teewal France di ambassadeur bi def na dem na visite fële ca Touba xalif bi recevoir ko eh, mu def ay message am daal di koy jagleel communauté mouride bi gis ngeen ko ci ay compte Twitter am yu officiel yu ambassade bu France ñoo ko posté visite yi mu def Touba diggante juma ji bi ko xalif bi recevoire ak kii di porte parole bi mi ngi noonu ci compte Twitter officiel bu eh, ambassade bu France moom di jël Larocque mi nga xamante ni moo fi teewal France nekk ambassadeur bi dem ci. waajtaayu màggal gi ak euh, wane gën a wane feddali euh, kóllëre ak euh, diggante France ak Sénégal lu am solo la image yaa ngi noonu ngeen koy gis di jaajëfal bu baax réalisateur connecté bi ak temps en temps réal toujours waaye tamit yoonu Touba ku ko xalaat xalaat lii eh, moo tax toujours ñuy def ndànk rek gën a alerter eh, encore une fois population bi comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne daw ndànk dal ndànk lii démb la benn internet moo ñu ko postel nee na gi déjà tàmbaleegul waaye lii ci autoroute Ila Touba bi la accident bu doy waar waaye eh, amul ñenn ñu ci am ay gaañu gaañu li ci gën a jàpp rek mooy ay dégâts yu doy waar mais lii tamit baax na it tamit ñun ñu ci gën a ñaaxante suñu bopp ku ci nekk rek gën a mën a wax sa morom ni dawal dal dawul ndànk dal ndànk loolu daal lu am solo la comme ni ko euh, Serigne Fallou daan waxee lu am solo la lii benn internet moo ñu ko postel ci suñu hashtag bi suñu net Facebook Twitter wala Instagram waaye ku wax màggal yi tamit xam nga euh, yii ñu ngi leen di xaar am na benn internet bu ne. Euh, yéen la ñuy xaar yéen ñii ndaxte dañu war a mokkal son yi balaa ñoo jëmali jëm jëm ci màggal gi yi tamit commencé nay def buzz ci réseaux sociaux ñeneen ñi yaa leen ko tàmmal ñoom jaamaan ñi nga xamante ni baaxoon nañu sax su nekk bu ñuy eh, waaj de màggal gi ñu génne way boo xamante ni toujours dañ koy jagleel màggal gi lu am solo la nag xale yi ci réseaux sociaux yi fi mu ne nii ñoom ñooy def buzz te son yi génnagul am na ñu ñu wax ne eh, ñi ngi ci studio di waaj ñi ngi xaar comme ni ko eh, internet yi waxee lu am solo la am na solo bii bu daaw bi la xam na ñi ngi xaar bu ren bi incha allah. internet ak réseaux sociaux ñoo ànd waaye information en temps réel euh, bu leen fàttee mbukk point www.igfm.sn mooy site d'information bu groupe Futur Média bi nga xam ni miin ngeen ko dañ koy rappeler rek ay information yu wér te wóor da ko fay amee loolu la xew Haïti la premier ministre bi ñu ne euh, dañ ko limogé ndaxte procureur bi daf ko xaw a soupçonné ci mbiru euh, faatu président ba fa nekkoon donc euh, mi ngi noonu loolu ay information yu wér wóor mbiru météo bi nga xamante ni tamit ñu ngi koy suivre en tout cas IGFM daal wala gis ngeen qualité bi mais surtout information yu wér te ak ni ngay duggee ci site bi nu mu yomb tombee dafa dafa am solo ay xibaar yu wér te foofu rek ngeen koy amee trois point point www.igfm.sn waaye yéen it tamit seen ay commentaire dañ koy xaar ak hashtag bi di sunu net Facebook Twitter wala Instagram maa ngi xaar euh, live bi ak équipe digitale bi ci ginnaaw ñi ngi xaar ndaxte gars yi xam nga ci live bi la ñuy sukkandiku ci mën a mën a mën a mën a liggéey ensemble ndaxte gars yi euh, dañuy commentaire ñoom it en temps réel ñuy gis seen commentaire yi li ñu fiy jàllale ñu ci ëpp ñoom ñoo ñu koy partagé ñoom internautes yi maa ngi xaar équipe digitale bi ñoom Adja ak euh, Magui di leen xaar ci live bi nii ñu mën a gis aussi commentaire u yi ndaxte ñun ñooy seule émission boo xamante ne c'est interactive social TV la ñuy def ñun ak ñoom dañuy commentaire ñun ñu gis jàllale commentaire bi ci télé bi. ci li xew ci yeneen télé yu mag yi télévision Futurs Médias ngeen koy amee fii moo tax seen live yi dañ koy bëgg di suivre en ten réel ak hashtag bi di sunu net Facebook Twitter wala Instagram li ngeen gis ni euh, benn internaute moo ñu ko postel muy mu rappelé wu quotidien wu la xew ci il yi yenn euh, côté île du Saloum yi dañu xaw a enclavé loolu mu ne lii ma nga euh, ambulance su ilu Marfafa ko ci île du Saloum bi ambulance bi la ñuy la la la la gaal gi noonu di transporter image bu yéeme la di wax ni rek euh, parfois voilà dañuy xaw enclavé gis ngeen ko noonu image bi xanaa tey lii mooy suñu image du jour euh, di jaajëfal ki ko tweeté noonu alerté it tamit euh, internautes yi yii la xam nga fi jamono toll ak téléphone portable ak internet léegi ak téléphone yi léegi gars yi ñuy gis rek mën nañ koy partager en temps réel ba pare teg ci ay information di gën a lancer autorités yi lii tamit def na buzz ci diggante démb tey lu doy waar la mbirum insécurité maa ngi wax léegi accident accident yi ci yoonu ilaa Touba bi ñu def ci ndànk waaye tamit lii comme vidéo bi ngeen gis doy na waar ñëpp a ngi koy partagé gis naa ko ci yenn page yi nga xamante ni ñu bari ñu ngi koy suivre et puis page yu crédible la mooy luttons contre l'indiscipline des sénégalais ak yeneen i page yoo xamante ni toujours kii ci otom la nekk filmer lii xam nga ni lii euh, doo mën a commentaire sax dañ leen bàyyi ngeen seetaan ko vite après ñu ñëwaat. voilà ngi noonu euh, wax leen ñu seen ay commentaire ci lii ngeen gis lu doy waar la lii man je pense que même ki ko filme sax waroon na mën a euh, jéem a wut solution ba mën a arrêté lii xam naa noonu la mujjee j'imagine arrêté lii wala mën a euh, informer chauffeur bi que ni lii mu def ni amul sécurité doy na waar image baa ngi nii tey lii moo nekk suñu vidéo du jour commentaire leen ci joxe leen ci seen xalaat et puis aussi lii tamit baax na parfois lii mooy côté yu positif yi ci euh, téléphone portable yeeg réseau sociaux yi ndaxte boo gisee li nga xamante ni jaaduwul wala loo xam ne gis nga ni war mën na indi ay jéyya ngeen alerté yi baax na yi tamit loolu tamit baax na am na solo euh, gis naa ko ci réseaux sociaux yi fu ne partage beeg diggante démb ak tey baaxoo na yi tamit ci émission bi di waxtaan ak euh, wala di jaajëfal bu baax suñu sponsor yi euh, rawatina euh, Jili CSB ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi 33 822 47 00 mooy maye cadeau yi pour internautes yi la mu ngi noonu pour yéen la dañ leen ci choisir ci émission bi tey nag dama am jafe-jafe dugg ci live bi te dama daan jàkkaarloog yi yéen ñii ci seen ci seen live yi ak seen commentaire yi mais tey moom xam naa ne affaire dafa bëggee mbir internet la parfois day baax. parfois mu kale te dama kale mënu ma gis jàkkaarloog live bi ci TFM xaw ma lan la je sais pas pourquoi naa ko bàyyi ak équipe digitale bi ci ginnaaw mi ngi noonu jili CSB moo nekk noonu rond point cité kër góor gi bàyyi na gars yi namm nañ la nee nga ñibbi si mooy def euh, gis nga ko noonu ci élément wu euh, jili CSB bi Pape Cheikh Diallo sénégalais yi namm nañ la nee nga ñibbi ay vacances nag day jeex ci lay profité waxaale la vacances day jeex nga ñëw ñu ngi lay xaar. lycée Berkeley aussi bu leen ko fàttimiku euh, mi nga xamante ni lycée de référence la fi mu ne euh, sixième ba terminal am ngeen possibilité Euh, inscrit ci seen ay doom ndaxte euh, dañ fay jàngale ci mbirum xarala yu yees yi application web yeeg euh, robotique yeeg intelligence artificielle ak lii di drone yi yi nga xamante ni xale yi léegi macha allah dañ ci xarañ mun nañ leen ci am possibilité ñu former leen ci lycée baa ngi noonu lycée Berkeley la numéro téléphone bi disponible na ngeen am possibilité inscrire ci wala woote téléphone demander ay renseignements inscrire ci seen ay doom. am na solo lycée bi di ko jaajëfal fas yéene na ànd ak ñoom euh, weer bi yëpp ngir euh, gunge leen ci émission li xew ci biir internet bi waaye image kase ci la bokk démb am na benn image bu ñu fi bàyyi woon mooy xool ba xam euh, gars yi ko trouver bari nañu ndax ñëpp. ñu ngi doon joxe seen réponse effectivement Demba Bala li ko prétexte bi nag mooy euh, dafa arrêté carrière am ci 36 ans moom euh, international sénégalais bi désormais ancien international sénégalais bi euh, Demba Ba xam ngeen ko bu baax ci bëgg réewam bëgg culture am di pulaar waaye tamit nekk fësal boppam lool di jullit gi mu doon di ko fësal ci fu ne moom euh, Demba Ba mi nga xamante ni xamee ngeen ko ci yenn club yu mag a mag euh, yoo xamante joué na fa entre Chelsea West ak yeneen ak yeneen euh, yoo xamante ni jaar na fa moom Demba Ba mi nga xamante ni def na ab tweet daal di annoncé que ni Dial dafa arrêté carrière mi ngi noonu tweet bi nag monde entier bi yëpp euh, reprendre nañ ko ñenn ñi daal di koy profité encouragé ko gis nañ fédération sénégalaise bu football def ab tweet daal di koy encouragé ay yeneen i joueurs yoo xam ni ñenn ñi joué nañu ak moom ñenn ñi xam nañ ko euh, daal di fay jaaree daal koy félicité encouragé ko souhaité ko bonne chance ci euh, li mu fas yéene jublu ci leneen ci dundam. moom Demba Ba waaye ku wax Demba Ba yi tamit xalaat bu mburéy bi mu dugaloon ci atum 2011 26 mars 2011 ci éliminatoire CAN 2012 ñu dégtal leen ko. grande classe Sénégal 1 Cameroun 0. Euh, oui on dira également bon coaching parce que ce sont les remplaçants qui ont basculé le match. ce sont les remplaçants qui ont apporté le plus. Ce sont les remplaçants qui se sont érigés en sauveurs de tout un peuple ce soir. Regardez cette pièce, que c'est beau. Alors, voilà le début de l'action. Issiar, conduite de balle, il passe son adversaire. Il va continuer le coup d'œil. Et voilà, l'extérieur du pied, le contrôle et la frappe de Dembaba. Quel but, quel but but, alors un but que, libérateur, salvateur, qui plonge tout un pays dans la liesse loolu la woon ca éliminatoire Coupe d'Afrique Amara Traoré moo nekkoon coach bi euh, Sénégal doon daje Cameroun gannaaw ba nga xamante ni ci atum 2002 Cameroun dafa gañe woon Sénégal ci final CAN bi lii nag mu nekkoon beneen revanche boo xam ne match bu ñëpp doon xaar Sénégal daal di fi am ndam ci digganteem ak Cameroun mu nekkoon match bu am solo ci fin temps bi comme ni koy waxee euh, noonu ñoom Jérôme Diouf ngeen di dégg noonu euh, Sénégal gañe Cameroun mu nekkoon jiite woon groupe E bi d'ailleurs lii ci atum 2011 la woon moo tax bu ñu nee dem Ba rek ñëpp dañuy fàttaliku biem bu rëy bi moo tax ñun tamit seen une occasion ñu rendre ko hommage moo tax d'ailleurs euh, moom lañ defoon démb image cachée am na solo tey kan mooy image cachée bi wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram commentaire yëpp dañ koy gis waaw commentaire yëpp dañ koy gis donc comment continuer leen ngeen joxe seen ay réponses kan moo nekk ci ginnaaw image bi ngeen euh, commentaire ci suñu page Facebook ci suñu compte Twitter ak hashtag bi suñu net ak fépp foo xamante ni ci plateforme yi la boo leen ko commentaire dinañ ko gis en temps réel am na solo loolu am na solo damay xaw kii euh, équipe digitale bi di xool tey dama amul daal possibilité gis euh, live xaw ma nu mu demee peut-être sama téléphone la tamit téléphone yi yàgg yi laa yor lii réponse baa ngi nii xool leen bu baax ndox mi mënul jàll fen lépp dañ ko tëj. xool leen ko bu baax ku nekk naan 6 la ñi naan 5 la ñi foo si bari nañu effectivement am na kenn joxe résultat bi ne lépp dañ ko euh, dafa bouché effectivement lépp a bouché amul euh, amul woon fenn foo xamante ni Lipton bi war na fa mën a jaar xool leen bu baax lii moo nekkoon bonne réponse bi mi ngi noonu léegi wax ñu ban moo nekk question bu bees bi mi ngi noonu léegi wax leen ñu bii tamit bii tamit dafa mel dafa xaw compliqué de même bi la rek benn internet moo ñu ko proposé wax leen ñu ban mooy fan la ndox mi war a jaar wala fan ci ban la A B C D E F G de suite mi ngi noonu kon commentaire la ñi ngi xaar commentaire yëpp te lépp la ñuy gis moo tax bi ñu fi bàyyi woon démb bàyyi woon nañ ko fi pendant deux trois jours ndax gars yi dañ doon doon may chance ba xam nag dina am kenn ko trouvé soit ñu may ko ci loo yi nga xam ne jili CSB moo ko fi joxe pour yóbbu ko ci euh, pour ñu may la ko nga boo ñëwee fii wala ñu envoyé la ci jili boo demee. da ngay jël sa loo photo partagé ñu it nañ partagé comme ni ngeen koy gisee commentaire yi bari na fépp live Facebook euh, YouTube dañuy gis commentaire yi ku nekk di ñu encouragé ñenn ñi di félicité ci émission bi émission bi ñoo ko bokk donc lépp loo xamante ni ay félicitations laak yooyu ñun ñoo ci euh, partagé ndoo ensemble kii ngeen di gis xam ngeen ko miin ngeen ko fii ci groupe Futurs Médias la bokk euh, journaliste bu mag la Mortala Gaye mi nga xamante ni dafa génne beneen livre wala livre bu bees Idrissa Seck l'ombre du passé boo xamante ne tey la war a génn ca Harmattan moom Mortala grand journaliste koo xamante ne réew mi ñëpp reconnaître nañu xarañteem ci métier bi mu nekk euh, moo fas yéene génne beneen livre génne woon na fi beneen livre bu njëkk euh, très sénégalais boobu moo nekkoon livre am bu njëkk ca Harmattan la woon beneen bu bees bi mooy euh, Idrissa Seck l'ombre du passé boobu moom déjà gis naa ci suba seeg léegi yenn journalistes yi commencé ko def statut waaw ci statut whatsapp yi muy jàll mi ngi noonu disponible na ci Harmattan comme ni ngeen koy gisee nii moom boroom xam-xam gu mu kenn werantewul la mortala yàlla yàlla gën a wéral loxo bi mbind mi di leer macha allah grand euh, mortala di ko jaajëfal aussi encore une fois di ko encourager di ko féliciter ci livre yu am solo yi nga xam ni toujours liy jariñ euh, Sénégal la am na solo bu ñu jógee foofu ñu dem lii action citoyenne la waxoon nañ leen ne wala saa su ne ci émission bi lépp ñu def seen ay quartier ci lu baax euh, wala parfois bu amee safaan bi tamit partagé leen ñun ñu partagé ko fii comme ni muy demee ci réseaux sociaux yi alerter autorités yi parfois solution judd ci mais ñii waa quartier amoo six loolu laa gis mais gis nañ ni vraiment defar nañ seen quartier bi macha allah c'était une occasion ñu euh, partager ndoo ko ak yéen yéen yi tamit seen quartier bu leen des ginnaaw defar leen ko ba mu jekk comme nii comme ni waa amoo ñii en tout cas jël nañu voilà jël nañu drapeau bi daal fi mu ne nii li xew ci biir internet fi ne nii euh, décoré nañu waa quartier amoo six ñii moom li ñu def seen quartier bi macha allah ba pare filmer ko ay xale yi jeunes yu xarañ ñu ngi ci quartier bi góorgóorlu defar seen quartier nii gis ngeen ko lii image yu waar la ba pare rafet na macha allah eh, encore une fa di féliciter eh, jeunes yi nga xam ne ñoo nekk foofu ca quartier Hamo 6 am ngeen possibilité yéen it seen i quartier seen région boo leen ko defaree ba mu mucc ayib comme nii eh, ngeen partagé ñu ko ñun it dinañ ko jël partagé ko ci télé bi ñëpp gis ko àddina wërngal këpp ndaxte télévision Futurs Médias ñëpp koy seetaan fépp fu sénégalais nekk ci àddina. waaw waa Amérique yi waa Europe yi ñëpp ay gis li nga xamante ni yéen a koy def ci lu am solo ci quartier waa Mamel. ñoom ñëwoon nañ fi dem semaine dernière nan leen dafa compliqué yoon yi pour ñu dugg ko dem bi dafa xaw a euh, doy waar mais ñoom it tamit góorgóorlu nañu ba fi mu ne nii ñi ngi defar yoon bi gis naa ni tey ñu ngi ko doon sax di bale lu am solo la tamit comme que ñëwoon nañ fi euh, wax leen ne yoon yu ñu ngi koy defar fi mu ne nii jël nañ ci ay matuwaay jar na yi ñu jaaraat fii war waxaat leen ni ñu ngi ci góorgóorlu bu baax lii tamit am na solo action citoyenne la hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram saa su ne wax nañ leen nii da ngeen koy euh, partager ñun dinañ gis lépp ci euh, internet bi ak réseaux sociaux yi am na solo continuer leen commentaire waaw lii nag euh, WhatsApp la lu yees lu WhatsApp fas yéene génne du yàgg dara en tout cas. ci iOS la nar a gën a disponible wala njëkk disponible mooy application bi dafa fas yéene retranscrire message yi nga xamante ne message vocaux la maanaam boo envoyé benn message vocal boo nekkee ci réunion yooyu am nga fooy bës ci whatsapp bi dina disponible du yàgg dara rek audio bi ñu transcrire ko en écrit loolu lu yees la WhatsApp nag mi ngi def ay innovation gannaaw sécurité yeeg yeneen yi ngi yi nga xamante ni mi ngi ciy góorgóorlu temps yi yëpp gis ngeen envoi éphémère yi ci seen téléphone portable disponible na waxoon nañ ko fi ndax ñu nit tamit ci émission bi loolu la saa su ne dañu leen ni wax bien avant moo ñëw envoi éphémère yi gis ngeen ko waaye lii tamit lu yees la loo xam ni euh, WhatsApp fas yéene na ko euh, dugal ci euh, application bi mooy message vocal yi parfois mën na ko transcrire en écrit loolu dina baax sama ñoom yaay yi lay envoyé ay vocal huit minutes nag moom xaw ma nu mu nar a mel bu ko naree bind nar a compliqué mais dina disponible suupa dingeen ko gis euh, ci seen euh, application euh, Whatsapp nga xamante ne bari na ci ay sénégalais yi koy suivre d'ailleurs temps yi nag envoi fmr yi moom euh, mi ngi noonu boo bañee dafa gën a renforce sécurité bi expliqué woon nañ leen ci ak borom xam-xam yi ngir euh, éviter parfois euh, yenn message yi di ñu koy teel a partager fake news yi booy envoyé fmr boo ko bësee rek benn nit ki koy jot muy photo muy vidéo benn yoon la koy xool rek mu effacé wu am na solo. Facebook yi tamit ñu ngi eh, gën a may beral loxo ñi nga xam ne ay célébrité la ñu am ñu bari ñu leen di ci réseaux sociaux yi ñoom eh, dañoo gën a teg ay yoon yoo nga xamante ne dinañ may eh, ñi nga xamante ne ay célébrité la ñu ñu am seen ñu mën a bokk génn ci règle de modération yi loolu xam naa dinañ ci ñëwaat ci semaine bi ñu génn gën leen ko leeral ndaxte Facebook ñenn ñi dañ naan dafay beral loxo ñi nga xamante ni ñoo ay célébrité lañu loolu am na solo bu leen fàtte mukk commentaire yi ak hashtag bi suñu net Pierre da Silva wanaat leen image cachée bi gars yi xool ko bu baax ak euh, wax ñu joxe ci seen ay commentaire kan moo nekk ci ginnaaw image bii ngeen gis ndaxte ñu nit ñu am possibilité choisir ci ay euh, internautes ne ñu dem ci jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi ñu mën a joxe jox leen ci seen loo yi loo yi nga xam dañ ko fiy joxe fii ci kër gi ak euh, fële ca jili CSB bi nga xam moo sponsorisé émission bi ak hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram am ngeen possibilité commentaire équipe digitale baa ngi ci ginnaaw ngeen gis en temps réel mi ngi noonu. lii di buzz la diggante démb ak tey benn euh, gala euh, met gala bi nga xamante ni baaxoo nañ di ko def amul woon ci atum 2020 ndax Covid 2021 bi mu ñëwaat euh, waaye buzz bi ki ko yenn mooy Kim Kardashian bi nga xamante ni déguisement bi wër na àddina def na tour ci réseau sociaux yi diggante démb ak tey ci gala mit gala bi nga xamante ni ñu ngi koy organiser foofu ca New York star yu bari di ko teewee. waaye démb bës bi euh, ki ko yenu mooy Kim Kardashian gis ngeen déguisement bi wër na àddina déjà gars commencé nañ ko def challenge gis naa ko ci réseaux sociaux yi gars commencé nañ ko def challenge déguisement baa ngi nii challenge baa ngi noonu aussi doy na waar internet ak challenge nag ñoo ànd bu benn affaire defee buzz rek déguisement Kim Kardashian bii nag commencé nañ ko def challenge waaw mi ngi noonu loolu moo euh, mooy déguisement bi def buzz ci réseaux sociaux yi ku nekk ngi ci commentaire waaw star yee ci euh, daje di ci solo ay solo yu yu yu yu yu yoo xamante ne baaxoo ñu di ko gis mais ku nekk day ñëw génn ak sa tenu exceptionnelle moom fii la génn moom Kim Kardashian mi nga xamante ni kenn dootu leen ko présenté mooy def buzz fi mu ne nii ak tenue bi ca Met Gala bi nga xamante ni. at mu ne dañ koy organiser fële ca New York 2020 amul woon li ko waraloon mooy Covid bi. ci noonu sax d'ailleurs lañ leen di eh, tëjee ak vidéo yi nga xam ne te ni ci émission bi la bokk da leen di reetaanloo dañ ne dañuy boole utile ak agréable dañ leen di informer leen alerter leen mais surtout parfois dina mel ni statut WhatsApp ngeen tooñ wala TikTok ngeen reetaan continuer leen commentaire commentaire yi nga xamante ne dañ leen ciy choisir surtout ci question yi image cachée bi question yi nga xam ne bàyyi nañ ko fi war ñu eh, question beeg image cachée bi balaa ñoo tàggatoo ñu xool bu baax bàyyi ngeen mën a def capture envoyer. ak hashtag bi sunu net muy Twitter Facebook Instagram YouTube bi aussi moo tax giseen démb YouTube bi explosé nañu aussi euh, mi ngi noonu ci baa ngi noonu joxe leen ci réponse bi ngeen yaakaar ni mooy bu baax bi entre ABCD ainsi de suite boo leen ko joxee ngeen euh, commentaire ci euh, ci réseau sociaux yi dinañ ko gis image cachée bi aussi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram commentaire yëpp gis nañ ko mi ngi noonu di jàll en temps réel seen commentaire yëpp dañ koy daal di partagé bu baax encore une fois gis naa gars yi di félicité waa amoo siis yi ci seen action citoyenne ni ñu def seen quartier bi wanaat leen ko lox loolu fierté la xam naa waa Géejawaay a ngi jubilé lii baax na ku nekk na ko jéem a xëccu ci sa quartier jël pee fi ne nii waa li xew ci internet dañ koy def nawetaan waaw quartier bu gën a dox def leen ko ngeen envoyé ñu video yeeg photo yi hashtag bi suñu net la mi ngi noonu lii euh, waa amoo sis def vraiment am na solo ñu ñu setalee seen quartier bi mais image ñu jël sax dafa rafet li baax na ci ku nekk fierte lay doon nga wane ni fii nga dëkk loolu baax na euh, yeneen quartier yi continuer leen ah waaw jaajëfal bu baax aussi waa lycée Berkeley ci noonu sax d'ailleurs lañ leen di tàggoo jox leen dig daje ba suba mu nar a nekk dernier numéro de la semaine wax nañ ko ñun ñi ngi fi lundi ba jeudi à partir de 13h30 20 minutes non stop la beneen heure bu baax baa ngi leen di xaar muy waa Wareef team baa ngi ci ginnaaw di waajal ñun ci noonu lañ leen di tàggatoo jox leen dig daje ba suba incha allah